bismillahi rahmaani rahim wasallallahu ala sayyidina muhammadin wa sallama tasliman sadid lisaani nawir janaani safi amaani wasid baraye asalaamaaleykum wa rahmatullah taxa barakaatu ñu ngi nuyoo nuyoo bu sell eh, di ci jiital eh, sëriñ Afi Bousso nga xamante ne nii Euh, moom mooy yor yor liggéey bi nga xamante ni moom la waa euh, Muxaddamatul Xidma yor di ziar mbooloo mi teew yëpp di ñaanal sëñ Muntaxa mu yàgg fi loolu te wér euh, ba naal yi mu naal ci yoonu maam sëñ Tuubaa Xaadim Rasuul bi suñu borom yàggale ko ci jàmm mu mel ne dañoo amaat jotaay ginnaaw jotaay yu bare bari yu ñu am ci jumaa ji waaye nag ñu teew fii ci ndigalu suñuy jëwrin e, buñ ci tuddee sëñ Mbacke Ndiaye e, mu mën a yóbbaale ñi des ñëpp e, jotaay boobu nag li ko waral mooy ay machines yi ñu indi ci jumaa ji nga xamante ni moo koy xayal di ko rafetal dinaa ci ñëwaat sax gën ko yaatal waaye ñu lim rek délégation bi nga xamante ni ñoo fi teew ànd koog mm, waa daayira bi mu xaddimatul xidma ginnaaw bi ñu tuddee sëñ Afe tudd ci ñoom sëñ Abdoulaat waaye tudd ci sëñ sëñ Abdoulaat bi nga xamante ne nii eh, leer la ci sëñ sëñ sëñ Thierno sëñ Thierno Bousso bàyyi sëñ Thierno Bousso bi nga xamante ni moom la ñu nekkal di liggéeyal fële ci relation extérieure ak daayira yi nekk Espagne yëpp su ko defee jotaay bi ñu ngi ci ànd ak eh, dëkk yu ay ay ay ay mbokki taalibe ay jëwrin eh, suñuy magu daara yu jógee ci dëkk yu ute ci Espagne Euh, mën nañ cee lim sëñ Baara Ndiaye jóge Alicante sëñ Jili Diop jóge Valencia sëñ Malle Ndiaye jóge Murcia sëñ Xaadim Thiam jóge Las sëñ moor Ndiaye jóge Valencia sëñ lamin njaay sëñ sëñ euh, sëñ euh, Bada Gueye ak sëñ lamin Meng mi nga xamante ñoo jóge Tenerife liñ doon wax rek mm, ci jotaay bi ñooñu buñ leen tuddee Euh, danañ ci tudd ku mel ne sëñ El Hadj Abdou Ndiaye ndax euh, machine yi bi ñu ko jëndee euh, dafa fekkoon ñuy waajal tàpp yi doon ñëw ci jumaa ji bi ko waa daayira Espagne déggee génne 1000 euros mbokki taalibe yi bu baax bañ jënd ci ñetti machine waaye yemuñu foofu daayira Tenerife bi defaat ci liggéey bu yéeme yéeme mooy li ko indi Sénégal ñu tegaat ci seen loxo bu baax ci coordination bi nga xam ne sëñ Ngañ Kama moo ko yoroon. waaw ku ci nekk nag bu ñu nee liggéeyu Muxaddamatul Xidma ci Espagne suñu xel yëpp day dem ci jëwriñ ja sëñ eh, Assane Diop waaye it suñu xel day dem ci ki nga xamante ni mooy coordonnateur général bi muy sëñ daam bu sëñ Moustapha Karim moom it mu ci def taxawaay yu am solo ba liggéey bi mën a mën a yemb ñu ànd kook suñu jëwriñ sëñ Mbacke Ndiaye yàlla na ko yàlla dolli kattan ba liggéey yi mu am yéene liggéey yëpp yàlla yàlla mottali ko su ko defee ne liggéey boobu it biñ koy def Euh, dafa am yeneen daayira yu ci jàpp dañu ci tudd daayira Toulouse Toulouse si ci sëñ Cheikh Niang ci coordination bi nga xam ne moo yor daayira Toulouse moom it jënd na ci benn machine waaye it ku ñuy wooye sëñ Pape Ndaw jënd na ci beneen machine waaw euh, soxna sëñ Pape Ndaw it jàppaat ci bu baax a baax ci matériel yu sew sewaan yi nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy xayal bërëbu sëriñ bi yooyu it soxnaam moo ko jënd boole ko ci matériel bi kon nag jotaay bi ngeen gisee ni mu tëddee. Euh, euh, noonu rek la demee mooy machine yooyu la indi maa ngi ko doon wax sànq machine yi nag buñ koy xalaat benn bu ci nekk jar na ci lu ëpp cinq 500 euro machine bu ci nekk tamit mànd mi buñ koy xool euh, mànd mi mën na jël lu ëpp juróom fukki litre waaye ay machine la yu nga xamante ne nii nag am na tamit solo solo bu nga xamante nii lépp fu mu fekk poussière lu xeetu pënd da koy dindi fu mu fekk xeetu ndox da koy dindi muy machine yu jàppandal yu nga xamante nii duggaat na ci liggéey bi nga xamante ne nii moom la ñuy defal jumaa ji kon nag mu mel ne eh, loolu leeral yooyu lañ doon def ci wàllum xam naa suñu suñu magu daara sëñ Baara Ndiaye dana gën a ñëw ci liggéeyu fédération bi ci Espagne ak nan la ñu war a gën a mën a taxawee ñun ñëpp àndaat liggéey bi bu baax a baax nga xam ne lépp lu ñu sumb euh, suñu borom ñu dëbb kàttan ci barke sëriñ bi bañ mën ko àggale ci ci ci ci jàmm incha allah ñu ngi santaat ñëpp di wax waaleykum salaam wa rahmatulah asalaamaaleykum bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu te di leen siyaare te di ci jiital sunu kilifa gii toog ci jataay bi di sëñ Afe Busa ak mbokki Busa mi mi mu àndal sëñ Abdoulaat Busa ñoom te bàyyiwuñ ci kenn nag ak mbokki tuuba Espagne yi nga xam ne teew fii te teewal fi jëw gi ñu sëriñ Mbàkke Njaay di wax ci kàddoom nag ah te di ko sant te di ko ñaanal ndax liggéey bi rafet na ak mbooleem jëw yi ñu ko àndal waaye nag di sant coordinateur u Muxaddamatul Xidma Serigne Ndam Lo ak Serigne Assane Diop ma seenu taxawaay rafet na ndax suñu fàttali ko ci jamonoy Serigne Matar Bousso lañ fi njëkk indi machine boo xam ne waaye jumaa ji moo ko taxoon a jóg te loola yàgg na la jamonoy Alaaji Baara la la Serigne Matar Bousso waxoon nag loola rek lañ leen di fàttali fii ci jumaay sëñ Touba ji fi barab bi liggéey bu sëñ Touba nanguwul du fi yegg si kon loolu daal na am xel ndax noonu la ko waxe woon kon nag ginnaaw yàlla dañoo xiir ci liggéeyal sëñ Touba di ñaanal suñu kilifa gii di sëñ Touba tey ci kaw suuf di sëñ Muntaxa mu yàgg fu te wér ak dongom ba sëñ Amdi Fall yàlla nañ fi yàgg ak mboolem jëwriñ yi yëkkati liggéeyu mukket yi jox ko taalibe Espagne ñu dem ba xolam sedd ci bañ koy jébbalee mu ne danaa leen joxaat yeneeni liggéey loolu moo indi machine yi loolu it moo indi liggéey bi ci euh, Daaru Marnaan ñu waxtaanoon saa kenn ku ci ne nag cinquante euros euh, cent cinquante euros cent cinquante euros yooyu nag suñ ko sasee waxuñu ne taalibu ne na nga ci yem ku man lu ko ëpp na nga ko def waaye dañoo seet lu gën a woyof loo xam ne ñëpp war nañ ko man ñu tudd cent cinquante euros waaye liggéey bu toll noonu ku ko xalifa Sénégal de mu euh, jox xam nga xel na da daa liggéeyloo te kum liggéeyloo ku ne nag moo la jëriñuloo ndax wala yi dañuy wax ne ku la feesloo ku ne moo la lekkuloo ak ndawal ndax moo la ko am loo kon buñ sëriñ bi liggéeyloo rek daf ñoo loo te liggéeyal sëñ Tuubaa nag ci la defarug tey ne ak defarug ëllëg kon nag ñu ngi soññi suñu bopp waaye di soññi suñu bokki taalibe bi yëpp ñu góorgóorlu ci liggéey boobu ba daan ko nañ ko daan daane ba sëñ bi man ne jox beneen liggéey te yàgg fi lool te wér moog taalibe yëpp liggéel sëñ Tuubaa nag kenn ku ne xam ne ne ci sa bopp xam nga la may jëriñ ndax jëmb dina yëg na ci boppam ak wér yëg ci boppam yor yëg ci boppam ak tal loola nag ci sëñ Tuubaa rek la su ko mën a amee kon sëñ Tuubaa moo jara liggéeyal tey ak ëllëg kenn ku ne daal na nga ci góor góorgóorlu jàpp ne boo ko mënoon saa fi danga koy daal di béy ci saasi ba nga ko tëlee te xam na sëñ waa moom jamono bu ne dalay kàttanal def ca sa kem kàttan liñ sase ku ko ëpp na ko def koo xale ca nga toll it nga góorgóorlu ba matal ko tamu gaaw ndax gaaw gi kat njëriñal kese te mooy tax sëñ bi man ñoo joxaat beneen liggéey kon nag nañ gaaw ci ndigal li ndigal li moo ëpp doole lu dul moom ndax fajuk aajo ak mbir mu jub ci sëñ bi la ne tex ak àddina ak tex ak ëllëg ci sëñ bi la ne kon nag ñu ngi leen di ñaanal bu baax a baax xam naa wax ji du mën a gudd waaye sunu xol sedd na dañuy soññee rek bëgg taalib yi lu bu baax a baax ci liggéey bi ndax liggéey bi ci la sunu lépp ne comme ni ma ko waxee rek di ko baamtoo ko baamtuwaat képp koo xam ne moo la liggéeyloo rek jëriñoo na la te sëñ Muntaxa dimbali nañu ndax jamono yàgg-yàgg rek soo nee daanaka Espagne laa ne rek day mel ne demagoo fenn ci Europe waaye tey kenn ku ne xam na ne Espagne foo ko tuddee ñu xam ko loola nag liggéel sëñ Touba ak waa kër sëñ Touba ya fay ñëw moo leen ko may kon nag taalibe yi fa ne ñuy góorgóorlu ci waa kër sëñ Touba yi leen fay fekk ndax sëñ Modou daana wax ne day njobootu sëñ Touba gi ñuy fekk ci réew mi de di leen fi fekk de seen ngànnaay la seen gàllaaj la seen wërsëg la kon nag ku ñëw te fekk leen fi ngeen xam li leen ca war waaye bu ndigal jógee na ñëpp maase fexe ba daan ndigal la ci lu gaaw a gaaw a gaaw ñu joxaat leen na ngeen ndigal ñu fasaale ci nag sunu kilifa xalifa yii ñu yàgg fi lool téwér muy sëñ Muntaxa Basiiru ak sëñ mu am di Fall Moodu Mbend te buñ ko waxee limaale nañ booleem jëwriñ yi suñ bokki busa busa yii nga xam ñooy waa kër maam jaara busa seenu pay moom soxna si am na ko sëñ bi am na ko yàlla nañu leen fayal ndax ñoo ne fii ci barab bi ah di doxal lépp lu fi ne te sellal ko te yaatu lool te yaatal ñu te am na kilifa gu baax gu ma wax ne ma man da jàpp naa ne maa leen maa leen waroon a yoral seen lépp ndax ñoo nekkal sëñ Tuubaa ci dëkk bi nekk ci alxuraan bi nekk ci ñi fi wàññi ko di leen taxaw kon seenub liggéey kenn du ñoom ñoom it ñu ngi leen di jaajëfal ci kàddu suñu kilifa man waa aw sax ci tugi muy sëriñ Seex Ndigal mi ngi leen ñu ngi leen di jaajëfal ci kàddoom ndax moom kat ku soññee ci imaam yi nekk fii la rawatina ñi sant bu sa kon nag ngeen ñaanal ko moom mu yàgg fi lool te ñu yàgg fi di leen wax nag jërëjëf jëfati jërëjëf jëfati jërëjëf jëfati allahumma salli ala sayyidina muhammadin bismillahi wa rahmatullah taala wa barakaatu waa Îles Canarias di ci njiital suñu jawrin Alaaji Abdu Njaay bi nuyoo kilifa yi nga xam ne moom lañ fekk mooy sëñ ape ak sëñ Abdoulaye ñoom ñëpp ñu ngi leen nuyu di leen siyaare bu baax a baax di leen baax làq te di leen baax làq di kontaan ci liw lool wax dëgg Alaaji Abdu moo ñu fi yebal ma ànd ak sëñ Xaadim am ñi ak sëñ Moodu Mbeng ak sëñ lemin jaay mu ne woon moo wax ne nañ fi teew ak Assane Diop moo ñu fi yebal kon ci kontaan ndax ngañ kama moo doon coordination liggéey bi moom moom itam wax dëgg Tenerife moo fa nekkoon di liggéey bu am solo kon nag ñu ngi leen sant di leen gërëm maa ngi jéglu nag man wax ji dama cee mënul kii maa ngi jéglu bu baax a baax bi loolu wee itam maa ngi sant itam daayiratul Muqaddamatul ma ndax ci koor gi bi sama wàjjur wi nelawee ñoom sëñ Abdoulaye Bousso ñoom ak sëñ Atak ñoom ñëpp ak ñu ànd ñëpp wax dëgg yàlla ñëw nañ fa ak délégation ba am solo ak da euh, amuloo ba am solo kon ñu ngi leen sant ñu ngi leen di gërëm ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm ñëpp te baalu àq ñëpp ci daayiratal mu Îles Canarias ndi li commencé ci Las Palmas Tenerife Fuerteventura ak lan ñu ngi nuyu ñëpp ci turu El Hadj Abdou maa ngi jéglu ñëpp te baalu àq ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullah bismillahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ñu ngi nuyu mbokk yi fi teew yëpp di leen nuyu ci turu Serigne Afia mi nga xam ne mooy jiitul daayira Muxaddamatul Xidma di nuyu waa fédération Espagne di tàmbalee ci nuyoo bi kilifa yi nga xam ne ñoo leen teewal fii di sëriñ Baara Ndiaye euh, sëriñ Lamine Ndiaye sëriñ Babacar Thiax mi doon wax léegi ak sëriñ Bada Gueye euh, sëriñ Xaadim Thiam sëriñ Malle Ndiaye sëriñ Mourou Mbeng ak euh, mbokk yi fi teew yëpp. di am mbégte lool di leen dalal fii ngir seedewaat ab liggéey bu am solo eh, sëriñ sëriñ Abdou bu Bousso mooy wax ci tur sëriñ Afia waaye ñu leeral leen rek liggéey bi eh, fi mu tàmbulee muy ginnaaw bi nga xamee ne waa Espagne sëriñ Mountakha sant na leen tapp yi fii ñu yeesal ko diir gi ak bitti gi xam ngeen ne daayira Muxaddamatul Xidma dafa defoon benn appel ngir tàmbalee ko ci boppam moom daayira bi ngir euh, leeral bëgg gum bëgg ay machines yoo xam ne ñooy accompagner liggéey bi ci di ko setal. accompagner liggéey bi di ko setal di setal moquette yi moo xam poussière la moo xam ndox mu ci tuuru wala yu demee noonu euh, xam ngeen ne Italie wuy si nañ ci indi woon fi ay machines ak waa France niki noonu euh, muy bokk taalibe yu nekk France. tey jii nag Espagne yi nga xam ne ñoom fédération bi ñoo jëndoon tappi seen contribution moo ñëw nii muy machines yu am solo sëñ Babacar wax na ko léegi muy ñeenti machines yoo xam ne fédération Espagne ñoo ko jënd ci njiital sëriñ Mbacke Ndiaye ak Baye Dame Lo mu Cheikh Moustapha Al Karim ak Serigne Assane Diop coordonnateur ak ñaari machines yoo xam ne France la jóge yoo xam ne su bokki taalibe yu nekk foofu ñoo ko jënd jaarale ko ci waa Espagne di indi ay jumtuwaay yu sew yoo xam ne yuy nettoyé doore bi ci barab bi la moom it soxna sëriñ Pam Ndaw jëddu euh, loolu la sëriñaa Afia teew nii ànd ak kilifa yi Muxaddamatul Xidma sëriñ Abdou Lahad Mokhtar mi di secrétaire général sëriñ Abdou Lahad Maam Assa mi nga xam ne moo jiite euh, social et relations extérieures ñu teew nii ngir dalal leen loolu it day fekk si liggéey yi nga xam ne fédération Espagne yàgg nañ koo jëf ci jumaa ji sëñ Baara Ndiaye wax na ko léegi matériel bi njëkk ñëw ci jumaa ji ci jamono sëriñ muxtaar ñoo ko indi Cheikh Mouhamadul Muntaxa ñëw na fii ci barab bii ñu toog seere fi ay matériels yoo xam ne indi woon nañ ko ay machine ak euh, lu nekk ci ay bagage daal indi nañ ko fi kon lii dafay fekk si lool rek muy liggéey bu am solo boo xam ne yàgg nañ koo def dafa mel ne daal ñoom seen mbir ak jumaa ji sëriñ bi yàgg na koo lëkkale loolu it kon yàlla na gën a yàgg koor gi rek moo ci mujj ci liggéey bu am solo boo xam ne indi nañ ko fi mu jëm ci ndogo yi ak surtout ci wàllu social bi Eh, yàlla dogal na man ak jëwrin Serigne Adi Serigne Adi Touré àndoon nañ fépp foo xam ne képp koo xam ne yaa ngi yëngu ci jumaa ji waa Espagne fekk nañ la fa ak dara loo xam ne dimbala luy jëm ci yow te loolu ndigalul Sëriñ mun la woon loo xam ne moo ko digle woon ne leen na ngeen jàpp ci matériel bi waaye na ngeen jàpp it ci ñiy yor barab bi di ko di ko dundal loolu lépp ay jëf la yoo xam ne tey jëfi tey jii day fekk si loolu rek soo ko defee kaddu yi dañ koy jox kaddu cant gi ak jaajëfal gi Sëriñ moo ko moom waaye jox na ndigal sëñ Abdou Lahad Bousso Muxtaar ngir mu war koo jottali dañ ko doon ubbil rek kon sëñ Abdou Lahad bisimilah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. gannaaw bu ñu sante yàlla subhaanahu wa julli ci yonente bi alayhi salaatu wasalaam yeesal sunu njëbbal ci Seexul Xadiim radiyallahu anhu ñoo ngi leen di nuyu nuyoo ba gën a tedd yéen kilifa yi nga xam ne yéen fi teew sëriñ Babacar Cax ak sëriñ Abdul Ahad tudd seen tur léegi di nuyu itam kilifa yi ngeen bàyyi ko te sëriñ Mbacke njaay nekk ca bopp ba ak ñi nga xam ne ñoo seq liggéey bii di sëriñ Assane Diop coordonnateur ak sëriñ maam Dame Lo euh, mu seex Moustapha al mi nga xam ne moo coordonné liggéey bi te di soññee te sonn ci lool itam te taxaw ci taxawaay bu rafet ak Alaaji Abdou Ndiaye ak euh, lu sëriñ Ngañ Kama ak mboolem koo xam ne rek yaa ngi liggéey ci biir liggéey bii. di tàmbalee sunu nuyoo nag ak sunuy ziyaara ci Cheikh Mouhamadul Mountakha di ñaan sunu borom mu yàggal ko fi lool te may ko wér di yëkkati kàddu yi cant ci turu sunu kilifa gi toog di sëriñ Afiya so imam mi nga xam ne mooy njiitul daayirat Muqaddamatul Xidma di imam fii ci jumaay Tuubaa wax ne sëriñ Mouhamadul Mamoun bëggoon naa teew ba jàppoon na ne dana teewe jataay bi waaye ginnaaw bi mu am ngànt wax ne fu sëriñ Afiya teew rek teew na fa kon teewaayu sëriñ Afia day teew teewaayam teewaay teewalaale itam Cheikh Mouhamadul Mamoun eh, imam eh, kaddu yi nag daanaka li ci matoon wax sëriñ Abdoul Ahad wax na ko léegi àndu daayiratu muqaddamatul xidma ak Espagne day ànd bu yàgg tey ànd bu rafet te mu mel na itam sëriñ Tuubaa moo boole ab liggéey woo xam ne dafa tàmbali te jàpp ne yemagut léegi day wëy rek eh, liggéey yooyu tudd na ci yenn léegi am na ay machines yoo xam ne daan nañ ko fi andi ci jamono Cheikh Mouhamadul Amin Baara am na ay machines yoo xam ne andi nañ ko fi ginnaaw bi am andi nañ fi ob oto ba mu yàgg oto booba dem ba mënatu la dox ñu andiwaat beneen oto andi nañ fi itam ci ay jumtukaay lu bari lool loo xam ne boo ñu jekke woon fii di ko lim dana jataay dana yàggal jataay bi lool ba ni ko waxee tapp yi nga xam ne Cheikh Mouhamadul Mountakha euh, ci yéene leen yiw yéene leen jàmm yéene leen xéewal gu yaatu tax na mu tànn leen ci biir taalibe yi sant leen ko ngir ngeen liggéeyal ko Serigne Touba ci barab bii muy tawfeex ju rëy nag yoo xam ne ñu bari soxla woon nañ ko te kum ko ci joxoon it dana ci taxaw nii ngeen ci taxawee waaye yéen la ko yàlla jagleel xëy na li tax yàlla jagleel leen ko nag seen taxawaay bu rafet bi ngeen amoon ci jumaa ji démb ak barki démb ak pasteef bu rëy bi ngeen ci am ba Sëriñ nangu seenub liggéey moo tax mu taw féexale leen liggéey bii muy liggéey bu ngeen war a sant yàlla lool nag ndax barab boo xam ne Sëriñ Tuubaa waxoon na ne ku ci feeñ feeñ ba faw sun borom dogal ngeen feeñe ci nii ngeen ci feeñe ba nit mënu fee dugg jaamu fi yàlla te tag tegut tànkam tegut bëtam ci seen jëf loolu ku la ko faggul fàggul na la loo xam ne mënatoo ko ko fay ba faw kon war ngeen sant Cheikh Mouhamadul Mountakha bu baax a baax a baax xëy na sant na leen gërëm leen ba addina sépp dégg ko waaye la Cheikh Abdoul Ahad Mbacké waxoon président Senghor ba muy tàggoo loolu rek laa leen di waxat man itam mooy daf ko waxoon ne ko cant gu la waa réew mi sant war nga ko war nga leen di sant cant gu ko ñetti te mbaagu ko te ndax ñoo la fal ñoo la te far la te dimbale la itam buñ la farutoon sab liggéey du àgg buñ la jàppale wutoon itam sab liggéey du mën rafet waaye yéen it sëñ Mountakha far na leen far na leen waaye dimbale na leen itam nag far na leen moo tax mu ti liggéey bu toll nii teg ko ci seeni loxo ngir fàggul leen ci lam leen di fàggul dimbale na leen it ba bi mu ko tegee seen loxo mu jàppandi leen lool bunt bu ngeen fëgg buy buy tax mu mën a am rek bunt boobu ubbiku loolu nag ab joxañ la boo xam ne war ngeen koy bàyyi xel bu baax a baax a baax boole ne gën na leen a boole itam ak jumaa ji ci ngeen di ko bàyyi xel te jumaa ji moom ko booleel rek sa mbir dana yewén àdduna sa mbir dana yewén alaaxira kon nag euh, liggéey bi nit boo amee loo xam ne ngóoraam mayu ko ko góorgóorloo mayu ko ko jomam mayu ko ko fullaam mayu ko ko xanaa ndimbalul yàlla lu mu am la loolu daf ko war a téye bu baax a baax a baax ak fukki loxoom bañ ko sàggane bañ ko doyadal bañ ko caaxaane euh, na ngeen xam ne bu leen yàlla narutoon a dimbale du leen boole ci liggéey bii waxuma laa di ko teg ci seeni loxo loolee nag xam ngeen ko xam tax na bi liggéey bi ñëwee noonu itam ñu am yéene yi sàmmal leen liggéey bii ndax lu mu gën a yàgg rek njariñ li di gën a ñëw ci yéen fii ak nit a ngi fiy taxaw di jaamu yàlla fii ak nit a ngi fiy taxaw di siyaare barabu Sëriñ Tuubaa bii tiyaaba ji di leen fekk fa ngeen nekk ñi nekk ci àdduna mu leen fi fekk ña jiitu ji mu dee leen fi fekk loolu nag yéene guñ yéene mu yàgg lool ba yéene nañ sax ngeen defaat ko ay yoon yoon waaye nag yéene nañ liggéey bii nag yàgg ngir ñee ca defoon te xëy na duñ fekk yàlla dogal na duñ fekkewaat jeneen jëf ja ñooñu it seen njariñ di ma di yaatu tax na ñu waxoon ne bëgg ni ñu defe liggéey bi mu toll nii war ñoo wut ay machines yu koy sàmm di ko seetal ngir cet gi gën a jàppandi Cheikh Mouhamadul Bachir moom Cheikh Abdoul Khadir bañ ko ko waxee fii ci màggal gi moom moo njëkk a wut ñeenti machines yoo xam ne yu mel nii la ndax xam gum xam njariñ li nekk ci liggéeyal Serigne Touba waaye xam gum xam nag li liggéeyub Serigne Touba di am am doole liggéeyal ko fii ni mu toll waaye def ci jàkka yitam ak jum mën a doon jëf jënam toll muy kon yu baree baree baree baree bare ay njariñ yoo xam ne dafa day ci biir liggéey bi loolay tax na ni ko waxee léegi euh, ay machine ñëw nañ fi jógee itali ndax amoon ñoom it yéen a jutal na ji am ci jëndi tapis amoon nañ ko ci te ba ñuy jënd fii tapis damaa waxoon ne képp ko bokk ci daayira Muqaddamatul Xidma ak foo mën a nekk ci àdduna bi na nga bokk ci liggéey bi ngir nga bokk ci njariñ li waaye bi ñuy def machine yi itam taalibe yi déggee nañ ko noonu ba waa itali ñëw nañ ak seeni i machine waa France ñëw nañ ak seeni i machine tey jii ngeen ñëw andi seeni i machine mën naa wax sax ne dañ doon njëkkalanteeg yéen waaye yéen itam ñëw gii ngeen ñëw tey day feddil rek la nga xam ne moom ngeen njëkkoon doon def te sax ci ba faaw itam nag kon nag ñu ngi leen ci sant bu baax ci turu Serigne di leen ci gërëm bu baax di ñaan cant googu ak ngërëm googu ngërëm loolu mu dajeeg cantuk Serigne Touba ak ngërëmu Serigne Touba te rafet nañ ci njort te loolu leen sunu wayjur wu tedd ba waxoon di Serigne bu Bousso wax ne liggéey bu nanguwul du dugg ci barab bii ngeen gëm ne kon yéen seenub liggéey nangu na ndax agsi na ci barab bi seeni liggéey sax laa waxuma seenub liggéey seeni liggéey muy liggéey yu bari waaye xanaa bii da cee mujj tey rek te sax du bu ci mujj waaye tey moo ñëw tey moo tax ñu di leen wax ci biteew waaye nangeen xam nag ne barab bi mi ngi fi yéen fii soxla it mi ngi fi du jeex mukk te yéen nag xas ngeen ci am seen seen seen loxo teg ngeen ko ci ba marqué ci ba noppi rikk waaye fexe leen ba loxo boobu moom bu mu teggi ko mukk fii ngeen nga ko ci teg rek seen xéwal di yokk yokkutey xewal moo tax sëriñ sëriñ bi ngeen noppi ci jumaay sëriñ Tuubaa ji mu jaxaat leen këruk sëriñ Tuubaa gi bi nga noppee ci jumaay sëñ tubaa ji mu jox la kër sëñ tubaa ji sëñ tubaa nag noonu la daan doxee fu mu masa dem fu ne jàkka jëlee jiital door cee teg daara ja muy këram sëñ ndaxa loolu la leen defal ngir bëgg leen a dimbale kon nag dëkk waaye ni ngeen góorgóorloo woon ci liggéeyu tapis ba mu àggee nii ni ko sëriñ bi waxee léegi rek na ngeen ni góorgóorloo ba liggéey bi ngeen amaat ci ndam lu kawe li ngeen am ci liggéey bi te am nañ ci yaakaar lool gëm nañ ne ne suñ bu leen bu bu bu bu doontoon seen wàll sëriñ bi du leen ko jox gëm nañ ne Sëriñ Tuubaa lépp loo fas ci moom te fas ci sa jom dana àgg kon nag yàlla nañ àgg ak jàmm te ñu ubbi ko ak jàmm te mu ànd ak xéewal waaw te di leen ñaanal rek tap machine yi nga xam ne moom ngeen fi indi yéen ak ñi leen fi jiitu te ñu kon fi indi ay tap yëpp lu ñu fi setal yàlla na ko yàlla setal ci seen i bàkkaar te setal ko sunuy bàkkaar lépp lu ñu fi euh, génne ci poussière wala ñu génne ko fi ci pënd nu feppi suuf ya toll wala feppi ndox yi toll yàlla na ko suñu borom dolli ci seen yiw euh, te ful ko te fay leen ko ñoo ngi sant bu baax nag ñi nga xam ne ñoo taxaw ci bagages yi ngir mu mën a ñëw fii ci réew mi di Alhaji Abdou Ndiaye ak mbokk yi nga xam ne ñoom la nekkal Tenerife fii yëpp ci itteewoo gi ñu itteewoo euh, machine yi ba mu transporter ko ba mu agsi ci sunuy loxo ñu ngi ñaan. dajawaat fa ay yoon yoon yoon ci ay liggéey yoo xam ne day jëm ci liggéey Serigne Touba te lépp doon lu Serigne Touba nangu di sant ñëpp di gërëm ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.